loolu lu am solo la xam nga fii ñu koy defee nii ci kër euh, Sëñ Tuubaa gi ci njaareem bi fi Sëñ Tuubaa nekkee yàgg na fi lool fukki at ak juróom am na ko fi xes yu bari fii la ko binde euh, jamono Sëñ Tuubaa barab bi doon barab yëngu barab boo xam ne barab bu dund la ci lislaam sëñ bi daan ko dundal ñëpp dégg nañ sëñ bi ak weeru koor weeru koor masaan jublu si muy wax yéen ngi teeru gan gi yéen a ngi koy waajal bi nga xamee ne sëriñ bi dem na dellu na Touba yàlla dafa def Cheikh Moussa Cheikh Moustapha mi fi nekkoon xaw a ñàkk jot lool ngir liggéey jumaa ji ngasum raay bi ak euh, liggéey yi nga xam ne yëpp yan woon na ci boppam mu gënoon a féete Taïf ak Touba ba tax na njaareem jamono yooyu ni mu war a dund daanaka dunde wu ni yooyu yëpp dafa xawoon a mel ne lu xaw a gent waaye bi yàlla waay bàyyi noppee ci ab liggéeyam ba gëleel ko liggéeyam ba mu delluwaat ci sëriñ bi eh, sëriñ Basiiru seetlu loolu daal di ñaan kilifaam Cheikh Mamadou Fadal daal di koy xamal ne ko njaarim di dafa dundoon lool jamonoy sëriñ Tuubaa rawatina dund ci lislaam bu baax a baax waaye dund ci ak taalibe waaye bi sëriñ bi demee ba léegi mu mel na dafa gent mu mel ne dafa néew doole ngir la fa kenn ci nun ñàkk a nekk moo tax ma bëggoon ginnaaw baat bi mi ngi ci yow nga toog fii ci dëkk bi ñëpp di la fekk man nga may ma ma dem njaareem la fa ba defoon lu ma ca man a dekkal ma dekkal ko dundal ko 1946 wala 47 xëy na du yàgg wala 48 daal soriwul yàggul lool mu ñëw njaareem nag ginnaaw bu mu ci amee ndigal kilifaam مطلبي ومخجل السؤل بالذي بالثناء أكون لهيجا ci biir nag dundal gi mu nekk gi mu fi daan nekk ci biir wooru koor wi nag ci la nag tàmbali njàngum fulku bii daan ci woo ku mel ne Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana génne benn téere boo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko tudde woon al fulkul mashhun fekk boobu mi ngi woon ci fi ak péetéem mu yor ko daan ko génnee bu tàkku saanee sëñ Mat Lamin toog mag ñi toog booba mag ñi bare ngi fi booba sëñ Mat Dem ñoom ngi fi sëñ ma jëmb si la ñoom a ngi fi booba mag ñu bare bari ci ñi nga xam ne ñoom la fi nekkoon booba ñu ngi fi ñëwee toog di ubbi téere bi di ko nafar di ko takraar waaye buñ ci gisee loo xam ne sax ñoom eh, xam nañ ci benn xissa wala am na benn histoire bu ñu ci xam dañ ko daan waxtaane ci biir njàngum fukk bi cosaanul njàng mi ci suñu dégg-dégg ndax li nga xam ne dégg nañ ko mooy Cheikh Mamadou Bachir moo ko njëkk a def ànd sëñ Mad lamin Diop Dagana dégg nañu ne sëñ Tafsir jàng na ci muy doomi sëñ mu Mouhamadou Lamine Diop Dagana sëñ Bouna Fall ab jàngkat la woon jàng na ci ku ñu wax sëriñ Abdou Gueye jaar na ci sëñ Alaaji Gajaga mi nekkoon daaray Kaamil bokkut ak sëñ Xaadim Gajaga mii moom itam jaar na ci sëñ Mountakha Guèye mi jàng tey téere bi muy xuraaniya moom mi ngi ci bëgg a yàgg fenaa 78 la ci tabbi ginnaaw bi ci la sëriñ Xaadim Gajaga ñëw am na ñeneen ñu ci jaar nag diggante bu gàtt jaar nañ ci njàng mi waaye ñii daal ñoo ñi ci gën a ñi ci gën a yàgg ci li nga xam ne moom la nu wax ci ak li nga xam ne fekk nañ ko ci ñu ñu jamonoonteel ci waxtu wi sëñ Mountakha mel na ne moom def na ci ñeen fukki at su ma juumul Mountakha Guèye jàng mi daal boobu xam-xam lañ ci am ci ñi nga xam ne ñoo ko àndoon ak Cheikh Mahamadul Bachir raafaqani qablu kiraamu wa rijaal fi gurbati waliya tayyabul majaal téere boobee sëñ Amsatu Jaxate moo ko bindaloon sëñ ko toppoon ba mu ko bindee ba noppi itam sëñ daf koo joxoon ay mandarga yoo xam bu ci àggee na xamante ne lépp lu mu ñaanati yàlla nangu na ko mandarga yooyu duñ ci àgg waaye am na waaye bi nga xamee ne yàlla def na ñu di ko jàng ab diir sëñ Basiru dafa xam sëñ Tuubaa digganteem ak alxuraan mu seet xasida yi nga xam ne sëñ Tuubaa da ko taalif te tënki ko alxuraan yëpp boobu mool bariwut waaye lam ca mën a am ca yooyu jamono lépp mu am ko daal di koy dajale daal di koy wuutale fulku mu jël fulku ba denc ko di ko barkeeloo waaye génnee téere boobee nag di ko di ko jàng ñu di ko jàng ci bis boobu ñu tuddee ko diwaanu xasaayid alxadimi al muqayada bil ayatil quraan yi daal di koy ñu di ko jàng ba ba léegi moom moom moom la ñu jàng. beneen téere bi muy fulku bi téere bi sëñ Tuubaa la am ndajalam sëñ Tuubaa waaye sëñ sëñ Abdul Ahad ci ba tey li ma dégg te Baye Xaadim Gajaga mi may jàngandool nettali ma ko ndax yàlla dogal na bi sëñ Abdul Ahad di indil sëñ Moustapha téere bi. moom fekk na ko fi nee na nee na sëñ ko indi wax sëñ Moustapha ne ko téere bi dama ko indi bëgguñu jàppeel ma ko taran ndax liggéey bii nga xam ne moom la sëñ si Basiru di liggéeyal sunu boroom sunu boroom nangul na ko ko kon nag lii ak taran laa ko jàppee taran mooy ku ku yab gerteem ba di ko yóbbu nga jël sa këmbus gerte tegal ko ci kaw ne nañ ko ko yóbbaaleel mooy téere bi nga xam ne noonu moom la ñuy jàng moo maag Baye Xaadim ñaari téere yi loolu moo ko waral. 1974 1975 76 boobu si Abdoulaye defaree bibliothèque bi ba commencé mool xasaayit yi bi mu mooy xasee xam nga mooloon na ay diwaan yu bari diwaanu sirku jawaahir ca la bokk diwaanu saadu daareen ca la bokk waaye diwaanu xasaayid alxadimi almuqayada bil ayatul quran yi ci la bokk waaye diwaanu xasaayid almuqayada bi xayri ayatul quran ci la bokk waaye diwaanu fulku mashhur ci la bokk ful ko machine boobee sax xëy na du boobu bii ñu bokkut ak bii ñu njëkk a wax waaye moom Sëñ Abdou ko dajale woon ñu ngi ko dajalee nag ci dajale yooyu mu doon dajale ci la génnee nag benn fulk yónni woolu sëñ Muntaxa mu ñëw mu jox ko ko ne ko damaa bëgg boo demee nga jox ko sëñ Moustapha xamal ko ne ko bii damaa bëgg ñu dolli ko ci téere boobu di ko jàng ma barkeeloo ko ci liggéey sëñ Tuubaa ba ñuy def foofu fa ñaareel loolu moo indi ñaari téere yi waaye benn la woon ba 1975 wala 76 إلى إلى الجنان وجه الله الكريم كليتي خيرا كثيرا لا يرين naka jekk fulk bi ci mujj bi sëñ Basiru ba nagee ne sëñ Muntaxa moo koy taxawee ndax da cee feeñaloon ak bëggu boppam sëñ Basiru xam ci ak bëggam daal di ko dénk ko ko nga xam ne buñu masaa ànd jëm ci fulk bi sax moom moo koy ŋàbbal fulk bi bu dikkee moo koy ubbil ñu daal tàmbali bi nga xam ne sëñ Basiru nekk fii sëñ Muntaxa bàyyee ko loolu mu di ko saytu di ko topp topp ku ko ci masaa bind bind mu booy sax moom lañ koy jox mu xool ko di ko topp ànd kook yow ba mu ko na mu doog a bàyyi loolu moo waral moom itam mu siiw ci mu siiwee fii ko def nag di ko def ba gannaaw sa gannaaw bi nga xamee ne jamono ñu ci ay wérad yeeg yooyu mu door koo dénk rakkam ji ñuy wax Cheikh Abdoul Hakim sëñ Abdoul Hakim itam yor ko yoreen mu rafet mu mel ne woo ko sëñ Muntaxa yore woon di ko saytu di ko toppatoo ba yàlla dogal moom itam mu dellu ci boromam mu mu delloo ci boromam rakam yi ñuy wax sëñ Fallou mi ngi fi moo koy toppatoo mooy yor lépp mooy jot ju mooy mooy dog dog yi mooy jukki jukki yi moo di taxaw mooy xam fu ñu toll mooy xam nu ñu jànge mi ngi fi moom itam yàlla yàlla may ko mu yàgg koo def lool ba lu mu ci bëgg ci ay ngërëm yàlla may ko ko sëñ Mountakha mi nga xam ne moo koy taxawee itam yàlla may ko defal ko ci dolli ko ci ay ndam ndax moom ku ne xam na am na ci ndam ndax loolu mooy tamxul mayna zintu makatiba taduru bayna al arsi wal kursiyi tamxul mayna nekk njaboot si Basiru sëñ Saxaa ngi fi waxtu bu nekk mi koy fekke di ko teew njaboot ji itam eh, li li li suñu bopp noo nga fi di ko jéem a ànd ak ñoom ñu jéem a saytu taalibe yi itam ñëpp a ngi ñëw di ko taxawee di ci bi bu baax a baax a baax. bi mu ko daan bi mu ko daan def itam daana def saa soo xamee ne ci jamonoy sëñ Basiru bis mu mujj bi ñëw na alaaji Mahamadul alaaji Baara moom Mahamadul Fa Cheikh Mahamadul Fadal daana ñëw di ko ànd ak sëñ Basiru seenu fi weer wi loolu dellu Tuubaa loolu itam mu sax ko di ko def ba sëñ Basiru dem mu ànd ko ak sëñ di ko defee na ni mu ko defee ba yàlla dogal muy xalifa général de wet mu continuer di ko def si loolu ya yan ba ak xat-xat ya ak yan ba ak diisaay yan ba yëpp yàqalu ko mu ko defee itam yàlla dogal ba moom itam li xew fépp xew ci moom yàlla mu dellu sëñ Abo mi nga xam ne moo ko fi wóotu bis na tey dana ànd ak njabootu Cheikh Mamadou Fadil gi yëpp ñëw ànd ànd ak sëñ Mountakha tëj tëj ñu bokk seeni weer wi bala ñoo tàggoo daañu xam ci li ñuy tàggoo daañu wari wala duñu wari ñoom itam ñu delluwaat loolu itam yàlla na yàgg limaahin basirin saana kulli maa raxi madihi ma al aadaabi wal xilmi wa sayi liggéey bi eh, mën naa ni ma nga tàmbalee ci eh, maam Ibrahima mbay mi nga xam ni moo jëloon loxol sunu waajur sëriñ Cheikh mbay teg ko ci loxo Cheikh Ahmadul Bachir mu am fu mu ko féete am lu mu ko féete leel fa mu ko féete ak la mu ko féete leel eh, gudd na yaatu na ba euh, mënee su ko wax lépp ci ci jataay yu mel nii waaye ci ci gàttal rek euh, pour walla euh, cosaanu tàmbalik mbir mi foofee la tàmbalee ma nga tàmbalee ci maam Ibrahima Mbaye mi nga xam ni moo jëloon loxo Baye Cheikh teg ko ci loxo Cheikh Amadou Bachir ànd boobee nga xam ne suñu borom dogal na ko ci diggante ñaar ñooñee moo dox ak pas-pas yi ak yéene ya ba egsi ci ñu liggéey liggéey bii mu njëkk organisation mbaar rek la woon nga xam ne ñun lii ñu yittewoo mooy fexe ba jumtukaay yëpp ne fi fexe ba mbaar mi jag Matar Fall mi ko yor nga xam ne at mi mépp ci lay liggéey li mu ci war a def mu di ko ci def euh, installation électrique yi normal li fi war a nekk daal ci jumtukaay euh, ci ci ci yu mën a jàppandal liggéey bi teew loolu rek lañ nekkoon waaye yàlla dafa def nag euh, Baye Modou Lamine Guèye bi fi newoon di waajuru sëñ Xaadim Guèye ñoom it dañoo amoon pas-pasu bi ñu gisee liggéey bi ñu ne du ñu seetaan dañuy fab seen alal di ko ci def ñuy dajale di def ay ay ay ay ay teg di ko dajale ba bu koor gi tàmbalee ñu ñëw fii fekk fi sëñ Moustapha Bassirou yëkkati lañu am jox ko ko moom it mu sasoo ni lépp lu muy def mu jëm ci ñuy jàng ak ñiy taxaw njàng mi ci lu jëm ci lu leen yëwanalal seenu nekk ci njaareem mu tàmbalee ko liggéey boobee ba Amérique ba France ñëpp yëg liggéey boobu ak ak dëggug liggéey ba tax ñoom itam ñuy def bu bu bu bu bu ñu waree rek xalifa mii day ànd ak ñi war a àndal ñuy wër di installer ay cellules ci quartier yi installer ay cellules ci dëkk yi ba am cellule à l'étranger ñoo ñee dañuy dajale lu ñu am di ko dajale di ko dajale ba buñ ni weer wi feeñ na ñu xayma loolee na mu toll ñu jox ko sëriñ bi defe naa ne yegg na fii ñu toll nii foo xam ne ñun amuñu habitude wax lim wante li wóor te wér mooy sëriñ bi ci boppam moo wax ni lim ci bëggoon a def lépp jëm ci ñooñee def na ko ba mu des ba mu féetale ko ci yeneen post de dépense yoo xamante ni euh, ci koor gi la aju gaa waaye euh, yaatug liggéey bi ak pas-pasu taalibe yi moo tax mu mën a egg foofu ala nabi wala tantahi nahwi sawa satwi bi toxi nañu sëñ bi ne ko dañu bëgg balaa déwén incha allah ñu gën a organiser liggéey bi ndaxte àdduna yi day dox euh, gannaaw tubaab yi ak ñeneen ñi nga xam ne lu jëm ci àdduna dong la ñuy doxal la doxal teg ko ci ay yoon ba ku fa ñëw ni est-ce que sàkkaak ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ngir yàlla kon ñu te war nañoo mën a am matuk am nañu ay compétence yu ko mën am nañ ay nit ñu am xam-xam yu ko mën ñu fexe ba gën ko organiser noonu nga wax si xaama moo ko doon def direct tey am na ñeneen ñuy def direct am na rajo yi def direct télévision yaa ngi ñëw première télévision bu am euh, euh, euh, partenariat ak ak Fulku muy 2STV ren loolu wane na ni yëf yi am na fu mu jëm te war nañoo séentu fi mu jëm fan la ñu waajal ko ba du ñu dépassé waaw parce que xam nañ ne mbiru Sëñ Tuubaa moo mel noonu danay eggi foo xamante ne li ma leer mooy ñun mënaguñu koo xam moo tax ñun bëgg nañu di di di di di di réadapter suñuy taxawaay ci par rapport ak situation bi xool nan lañ ko gën a organiser communication beeg press bi nii mu leen ñore ba ñoom ñëpp ñuy ñëw benn du des ñii di def direct ñii di def différé guddi gi yëpp rajo boo jàpp tele boo jàpp dina génn film kon loolu wane na ne war nañ ci gën a taxaw war nañu gën a organiser loolu gën ko euh, moderniser ba képp ku fi ñëw lépp loo war a am ci ci jumtukaayu liggéey nga fekk ko fi sart yi ñuy liggéey it ñu xool ko ba teg ko ci yoon yoo xam ne ku ci ne di nga xam fi ngay jaar loolu lépp ñu ngi ciy xalaat danañu bëgg a def commission de presse boo xam ne danañ ko fi teg beneen yoone incha allah ñu waajal loolee lépp ay weer balaa fulk bi di ñëw ba buñ ñëwatee insha rabbi lépp dina jaar ni ñu ko bëggee xaabu adalla rabbuhum amaaluhum wa dayacu fi baatinin amwaaluhum ittabacu albaatila walseytaana wa bilmacaasi ammaru lawtaana ñu ngi ñaan mboolem koo xam ne mën na cee teg loxoom ci yu baax yi moo la mbaa commerçant mbaa lu a doon mbaa sax euh, rek ko man ku nekk loo ci man ci teg sa loxo nga def ko ndax lii ak yokkute la ndax euh, fulku daayees na ko dégg waaye xam lu mu doon ak lu ko tax a jóg loolu lu néew la woon kon bu amee gannaaw yàlla ak média bi moo tax mu am kon nag ñu ngi ñaan man ñi nga xam ne yàlla yekkal mën na leen gën ñëpp ku ko ci man rek nga teg sa loxo ba li gën a yaatu gën a dem kanam bu ko defee ñu leen ci ñaanal tiyaaba ji nga xam ne moom sëñ Basiir mi ko sos lam ci bëggoon euh, lu baax rek la ci bëggoon bëggoon tasaare mbindum sëñ bi bëggoon tasaare xam-xamu sëñ bi kon ku ca toj sa loxo it mel boobee ak yéenam jooju yaa ngi ci biir jërëjëf ñu leen di sant <laughs> radiyallahu anhum wa radu anhum rabbi karimun waasiun wa yufaddilu wa wasilati abdun ladayhi mufaddalu kon ñoo ngi sant ñi nga xam ne am nañ tawféex di teewlu fii. kon ñi ngi sant ñi nga xam ne am nañ tawféex yi di teewlu fii. ñu leen di sant ci seen yitte bu baax ñu ngi leen di sant ci seen yitte bu baax. sant ñi nga xam ne itam. sant ñi nga xam ne itam. am nañ tawféex yi. am nañ tawféex yi. seen yitte yëpp di sëriñ bi. seen yitte yëpp di sëriñ bi. xam xam xam liggéey bi. xam liggéey bi. bu waxtu jotee. bu waxtu bi jotee. fu ñu mën nekk. fu ñu mën a nekk. ci bitim ci bitim réew. ñu seen lépp. ñu bàyyi seen lépp. di teewlu. di teewlu. di déglu. di déglu. ñooñu ñu ngi leen sant cant gu rëy. ñooñu ñu ngi leen di sant cant gu rëy. kon ñu ngi sant ñëpp. kon ñu ngi sant ñëpp. ñi ko bokk ñëpp. ñi ko bokk ñëpp. képp koo xam ne sëriñ baa ngi ci sa xol. képp koo xam ne sëriñ baa ngi ci sa xol. noo bokk liggéey bi. noo bokk liggéey bi. ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax. jërë ngeen jëf. jërë jëf. kàddu yi kàddu yi cant rek la. kàddu yi kàddu yi cant rek la. noo ngi ciy jégalu. noo ngi ciy jégalu. kàddu cant rek la kàddu cant rek dañ koo mënta ñàkk a wax. xol. te jëlee ko ci sunuy xol. andi ko ci sunuy làmmiñ. ci sunuy yu baax yi. jëmee ko ci kilifa yu baax yi. waa kër Cheikh Mamadou Fadel yi. waa yi. ñu nga xam ne ñoo jëf jëf jure ji ñu jëf. ñëw fii. ñëw fii. ñu ñoom. bokk ak ñoom loolu rek dafa doy ak cant sëkk kon jërë ngeen jëf ñi ngi sant ñëpp atawakkalu najaytu wa raditu anhu wa artaji kuni rabdiyan indahu qad yufdalu hablul muna wa ala alwasilati salliyan ya man yuqaddimu man yasha wa yufaddilu hablul muna wa ala alwasilati salliyan ya man yuqaddimu man yasha wa yufaddilu هب المنى وعلى الوسيلة صليا يا من يقدم من يشاء ويفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين